wax nu ma la wax sax maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di jégalu ñëpp donte tooñu ma mais weddi du ragal seetal sa der la Papa Sow ci mikaay moo ngi fële ñun suñu sabara ngi fii laa yaakaar naa ne tey lamb ji ëpp sécurité lamb ji la tëjal nañu ay barrière defalal nañu li ñu war a def li ma tuusee pare génn naa samay sabar dèjà avant ma tuus rek Lamine ñun nañu cërale si lamb quoi Lamine ñun du ñu ay ñun dañuy neexal lamb xool si te ni muy esat mais tey wërale nañ ma fu ne fu ma teg samay sabar ñu na ma demal fee am nay tëggkat yoo xam ne dañoo ñëw ne ma yow xanaa doo tëggkat ñoo xam ne indiwuñ kenn dañoo seetaan ma toogal fenn ne ma toogal fenn mbër kenn du ko indi di jaabante di toog fii di toog fii di toog fii ma ne leen parce que tey jàmm ñu tax a jóg biñ tuusee pare policiers ñoo ma tëj ak ay barrière ne ma toogal ne ma toog Lamine su ma yaaxoon lamb ji du ma toog fii policiers ñoo ma garder boo ba léegi ngir bañ ku ma laalaat ndax góor a soog billaahi wallaahi wal kitaabi góor a soog moo ci cumikaay gi di dox di ñëw yor ñaari butéel bi ma tëggee pare man su ma tuusee le site pare damay bàyyi booy tëgg man ma taxaw seen ginnaaw di observé ma seen ko buy ñëw ma ne xam naa dañuy wër pour am fu mu dem mais ma gis ko mu wàcc feer bi mu wàcc zone bi ñëw si feer bi si suuf ñëw di jubal si fi sabari nekk rek ma daw tee ko ne ko doo dem mu dóor ma ma moytu policiers yi ñëw fexe batam patamee ko ba yóbbu ko après na xam naa si lañ ne dañuy ñëwaat far force Papa ñëw ak waa équipe yëpp barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul soo amul yàlla bu Siteu daanati mbër Papa Sow bi muy dox maa ngi gis bi muy dox di ñëw la jël béggu naaw naaw bi si góor a soog affronté daa dal si kaw policiers yi homme de ni ñoo ngi fi man mii sax ñu ma leen waxal lu amul daa dal si kaw policiers yi ñu téye ko looloo tax sa xëy na gaañu ma mu forcé forcé forcé ñëw di ma door dóor ma béggu su ma dóorul ku bu mu téewaaleeg béggu naaw naaw man sama bët bi pour man tuuru na moo tax ma ne la mënu ma laa waxaat dara si xeex bi à part loolu mais Lamine. xe bu amee woon si cumi kaaga tey laay rus mais samay biir sabar laa si xeex bi amee woon. léegi Papa Sow. beegu naaw naaw la yor moom moo moom en personne. bu ma Papa Sow doorul man jili fii yàlla bu ma gisanteeg Serigne Touba yomal xiyam. xanaa da nga ko doon koj dafa doon dox nga koy koj wala lan. si biir sabar yi. sa biir sabar sa biir su amul yàlla bu ma yàlla bu si da daanati mbër su amul. si biir sabar yi te du moom kese du moom moom nekkul moo njëkk a ñëw. Euh, Goro Sok moo njëkk ñëw. ñu affronté ko moom Gora Sock après dégg ko ku si wax te yàlla tax na la wax ak yàlla buñ daanati mbër ñoom ndax mbër da loolu la gën a bëgg mbër gëmul mbër loolu la bëgg na ku fi ñëw toog fi na la expliqué te yàlla rek tax Gora Sock ñëw na ma ne ko doo fi jaar mu patam patam mais ma dam policier ñëw génn ma si ndax mais Lamine tuuti naa trop mais gii nii waaw est-ce que est yéen tamit am ngeen droit tey di wutal mbër fu mu war a yem ce que am ngeen ci droit est-ce que mbër am na droit ku ne ñu wutal la fi ngay toog tëj la si ay barrière teg ma fële ñoom ñu ñëw ne sama biir sabar lañ jëm si waxuma la jaar de jëm si laa la wax lamin du ñàkk nag xëy na sax am ko taxaw si kaw filmer ko wala dara mais boo gisee ni ma nit ñi doon encouragé rek nga xam ne man li ma war laa def Papa Sow mënu ko dóor mënu ma ko sama téeméeri xel xalaatul loolu parce que mën na ma yeew fii <laughs> mais tooñ du gàllaaj ak Papa Sow fi mu toll si làmb parewul si te contre ku gi dañoo toj boppam 3 heures si ngoon da ko nëbb ñun ñi ñëpp bi ma nekkoon ay tus. dama na ko cee bàyyiwul. pare ba sonn nañ mu ñëw bëri. ah eh Lamine Lamine Lamine eh doo gan si ba nga jugee looro dafa yàgg de te ba léegi yaa ngi si làmb. waaw Papa Sow xam nga ne loolu lay wax. Eh. ngir sambala mais bàyyi ma leen ma ma bëre man ma dugg si géew bi ne damay bëre taxul ma bëre fi Papa Sow parewul pour bëre. mais mais est-ce que ñëw na si ñun ndeysaan mais mais mais mais Djily est-ce que lii du gàcce tey ci axlu làmb gàcce la du si du gàcce si axlu làmb de mais gàcce la si Papa Sow ci axlu làmb non gàcce la si Papa Sow ndax fi mu toll problème bi mooy c'est pas la première fois ñuy dund lu mel non non non non Lamine Papa Sow fu mu toll si làmb lii waru ko ak lu mën ci xew Lamine yow xam nga ne tëggkat li li mu tal mooy jàpp rythme bu neex ñun ñun ku ñu xam-xam ne ñëw indi lu neex tëggal suñu mbër toog xaar yàlla may ñu ndam wala may ñu leneen ñu génn ñibbi ñu la ñuy xaar mais xeex bi laa la wax boo amee woon ci mi gaay Papa Sow damay rus tey mais si biir sabar la moom nee na sabara ko dal ku sabar dal moom lan moo tax sabar dal la te Papa Sow xanaa kuñ dóor ku man mi Papa Sow ku Papa Sow li ma leex Lamine soo amul force de l'ordre yi ñoo ngi may dégg ñoo ma si génne moo tax après ñoo ma sax téye na ma fee ngay toog ndax gis nañ lépp gis nañ lépp